la rédaction moo dellu siwaat ñi am mbégte tey di ci dalal Lansana Sarr moom coordonnateur APR des îles du Saloum la ñu fas yéene waxtaane ak moom lépp lu soxal actualité bi waaye tamit wàllum politique ak fële ca île du Saloum naka la fa parti bi di APR toogee Lansana ma bàyyi la nga nuyu ak ñuy suivre. waaw ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu eh, ñëpp ñuy suivre eh, Sunugal 24. Mm-hmm. Eh, di leen ñaanal yàlla defal leen tawféex ak tayseex ci barke Seydina Mohamed doole laa ilaha ok na ñu ngi jaajëfal Île du Saloum fi sori na ñi rafetlu invitation bi ñu nangul. merci alors dañuy doore waxtaan bi ak mbirum Ousmane Sonko mi nga xam ne ñëpp moom la ñuy waxtaanee démb ki nga xamante ne mooy kilifa parti bi di APR waaye di fi nga bokk jiite tamit coalition Benno Bokk Yaakaar génn na daal di weddi tuuma complot bi ko Ousmane Sonko di accusé wax ni moom talul sax mbirum complot wala mbiru suufe yooyu nga xam ne nekku ci am na yeneen préoccupation yoo xamante ne ci la nekk. gannaaw gi Ousmane Sonko daal di koy tontu alors sortie président Macky Sall bi noo ko jàngee. waaw d' abord di rafetlu sorti président de la République Macky Sall euh, encore une fois mu wone euh, posture homme d' état bi mu bi mu bi mu doon te moom la yàgg a di wone également aussi que moom il incarne létat au plus haut niveau donc loolu aussi mooy waxu kilifa parce que problème bu amee. Euh, problème boo xamante ne aussi dafa concerner ñaar ñaari citoyen sénégalais donc euh, am na leneen lu mu ci mën a wax lu dul di ci dugg je pense que comme ni mu ko waxee il a assez suffisamment de préoccupation par rapport ak li tax ñu teg ko ci boppu réew mi mooy soxla nit ñi ak soxla askan wi donc ci lay xëy ci lay gontu te yaakaar naa ne fi Sénégal tollu tey donc li ko gën a intéressé mooy nan lay def ba Sénégal jëm ci kanam te yaakaar naa ne aussi looloo tax sénégalais yi woolu ko ba joxaat ko deuxième mandat mais njiitu réew mi dafa mel ni yayul ki nga xam ne moom la doon bon waxul ak moom mais ki wax ji concerne mi Ousmane Sonko parce que jàpp naa ne euh, mbir mi buñ ci tuddee benn responsable bu APR rek loxo mi ngi ci forcément. waaw xam nga politique politique de moo moo moo di mel parce que lépp loo xamante ne nakari na sénégalais wala lépp loo xamante ne euh, dal na sénégalais liñ ci njëkk a wax mooy. njiitu réew mi moom moo ne bon naam nag moom mooy premier responsable bi nga xamante ne moom mooy yor kaaraange ak doxalinu réew mi donc toog ne président de la république dafay xaw a dafay xaw a yomb trop mais comme président am na yeneen préoccupation donc am na loo xamante ne du ci du ci xaw a du ci xaw a sori te d'autant plus que aussi dossier bi muy dossier boo xam dafa concerner ñaani sénégalais comme ni ma ko waxee muy dossier boo xamante ne aussi moo ngi en instance donc kenn mënu ci prononcé wu donc lu dul fekk ne dem nañ ci yoon ba lépp li nga xamante ne moom lañ ci war a leeral ñu leeral ko ci mais yaakaar naa ne président de la république ak waxtu bii ñu toll nii tey yaakaar naa ne mu toog di ci wax donc we eh, ni ma ci ni ma ni ma ko mën a jàngatee mooy dafay mel ni comme amul ay préoccupation wala amul ay yiite je pense que contexte bi ñu nekk nii contexte Covid bi doy na ko sëkk pour mu wan cee wax aussi xool aussi situation économique mi léegi expliqué bi laa seen est-ce que contradiction amu ci parce que tudd nga contexte bi ñu toll bi tudd nga bi ñu nekk nii loolu est-ce que doon prétexte suffisant pour mu bañ a prononcer ci mbir mi waaye mu ciy wax. doon tey bi mu dooree bële kenn déggu ko ci kenn déggul ay partisans tamit ñu wax ci. non loolu loolu aussi xam nga sénégalais li ñu ci mën a jàngat mooy président de la République Macky Sall kilifa la benn. ñaareel bi aussi muy njiitu benn bokk yaakaar muy ñaar te itam bi lii xewee ba léegi kenn déggoo ko ci loolu itam yéen en tant que journaliste li ngeen war a mën a jàngat première leçon bi ñu ci mën a tiire mooy président de la république et moom moo ngi ci bopp coalition bu dëgër coalition bu ko déggal aussi coalition boo xamante ne aussi am nañu yar am nañu teggin parce que tey ba tey kenn ngaangu ci kenn waxu ci parce que itam loolu moom mooy discipline de parti te fekk ñun ñoo ngi doxee nii ba lii di jeex doo ci dégg ñu bëri ñoo xamante ne xëy na peut-être intégré nañ la discipline de parti ñu wax si donc li ci am solo mooy li ñu mën a jàpp te mu wóor te leer mooy problème bi ñaari sénégalais la concerné fût-il Ousmane Sonko wala muy keneen mais problème boo xamante ne ñaari sénégalais la concerné ñu dem ci yoon. donc nañu bàyyi yoon def ci liggéeyam buñ ci bu ci bu ci bu ci conclusion génne à partir de ce moment nit dina am la la possibilité apprécier la situation ba pare joxe ci ay position complot bi ñu ciy wax nag yow noo ko gisee ak responsable APR bi lu lu leen ci boole kon wax dafa yàlla loolu moom duma ci xaw a sori parce que du ay du ay du ay ay parce que ñun bu ñuy wax dañuy wax ci ay ay faits réels waaw donc mënuñu wax ci ay supposition non fay kay mooy gis nañ ne koo xamante ne eh, ki ko ki ki ko jël yóbbu ko responsable APR moo ñooñu mooy mooy mooy mooy papaam lañ ko mën a tuddee bu dee wolof la ñuy wax gis nañ tamit tudd nañ ci benn avocat boobu ne ba léegi kenn xamul mu féete tudd nañ ci benn médecin boobu kenn xamul lu mu féete mu mel ni dafa am benn main bu bu bu dugg ci biir boo xamante ne bu invisible la. waaw parce que wax jooju ngay wax xam bu fekkoon ne par exemple dinañ ca dinañ ci mën a wax wala mu doon loo xamante ne xëy na aussi ñi ko def ñoom ñoo taxaw ne lii ak lii la demee. non Sidi Mohamed Mbaye ma feeñee si PV. waaw mais loolu nag dañuy bàyyi nag ba ba ba ba ñu dem ci yoon loolu yëpp dina ci feeñ parce que aussi xam nga il faut que ñu xam ne vraiment suñu gendarme gendarmerie bi ak euh, mooy officier de police judiciaire yi muy ñu ñu xarañ. Mm-hmm. ñu am pas-pas ñu am yéene ñu am jàppale aussi ci réew mi. parce que da nga da nga tudd léegi yoon. te yoon boobu ñi nga xamante ne ñoom la concerné dañ ko jam baaraamu tuuma ku ci mel ni Ousmane Sonko ak ñeneen ñi koy jàppale parce que dañu jàpp ne fi ñu jaar Karim Wade ñëpp gis nañ ne créer juridiction d'exception la Khalifa Sall caisse d'avance bi lañ ko daaneele Ousmane sonk bu moytul mbir mi la ñuy jaare pour daana ko donc mel ni dafa am benn suspicion boo xam ne dañ ko teg ci ci ci kaw yoon xam nga xam nga yi ngay boole moom moo bokkul parce que CREI c'est une juridiction d'exception boo waxee waxu CREI wax waxu justice beneen beneen justice donc dafay xaw a wuute donc suñu justice bi am na crédibilité parce que am na ñoo xamante ne ay opposants lañ am nañu problème ak ay sénégalais dem nañ ci yoon ba gagné donc même ci ci ci corporation bi ngeen nekk mën nañ ci citer ay ñoom Pape Alé Niang tey jii bon moom il est au devant de la euh, il est au devant de la scène di wax di wax ñaata yoon la dem au niveau de du tribunal ñu yóbbu ko fa mu dem ay procès gagné ko donc loolu moom moo wone ne la justice elle est crédible mais nag dañoo tollu ci réew moo xamante ne tant que moo lay arrangé. da ngay tirer le chapeau la justice sénégalaise mais tant que arrangé wu la da ngay jàpp ne la justice c'est une justice téléguidée ou orientée donc je suis vraiment désolé pour que ñi nga xamante ne ñoom ñooy xalaatee noonu ñu xam ne dañoo nekk ci état de droit état de droit nag moom moo war a garantie liberté yi. garantie également mais boo seen lu ñuul daw Ousmane Sonko dafa gis ñu diri kële yóbbu mu génn. ñu diirwaat keneen yóbbu mu génn moom bu ñu ko diiree nar a yóbbu est-ce que du yuuxu. waaw mais yow le cas Karim Wade xam leer na la ne faits yi ñu ko toppee c'est des faits réels. mais mais mais fi ñu ko jaarale mooy problème. waaw mais lépp loo gis lépp loo gis ci àdduna lépp loo gis ci àdduna mooy doomu aadama dafa am yoo xamante ne da nga koy moytu surtout ma am na yenn responsabilité yoo xam ne boo ko bëggee jël donc am na noo xamante ne noonu nga war a taxawee looloo war a nekk sa ligne de conduite. donc muy Karim Wade muy xalifa Sall je pense bien que les preuves ont été assez suffisantes pour que ñu incriminer leen donc tey jii nag lépp loo xamante ne tegu na ci donc mooy les conséquences d'une justice conséquences yooyu c'est des décisions de justice qui ont été applicables à des citoyens donc citoyens yooyu tey jii nangu nañ ko parce que bu ñu ko nangul woon dinañ def recours ñaata recours lañ def fi nga xamante ne Sénégal eh, euh, maanaam état du Sénégal ci côté justice lajj na fa au niveau de la CEDEAO avocat mi dem nañ foofu ba ñu jox leen yoon fi nga xamante ne aussi dañ leen fa daaneel dañoo ñëw au niveau de la justice sénégalaise ñu confirmer ne fii moom dañ fay daanu donc justice bi moo ngi dox comme il faut et je pense que aussi au-delà de notre justice donc on est coiffé par par par des instances telles que la CEDEAO képp koo xamante ne tu n'es pas assez content par rapport à la justice am na foo ko mën a jooyee te itam ñu xam ne am nañu ay avocats yu xereñ muy du côté de la défense du côté aussi euh, des des des des des de la de la partie civile donc muy ay avocats yu am xareñ am am taxawaay donc tey jii man li ma mën a gëm daal mooy dossier Ousmane Sonko comme c'est un dossier en instance au niveau de de la justice comme ça ñu bañ see sori xaar ba conclusion yi génn en tant que responsable politique ku ci nekk di nga tirer sa conclusion. Mhm. waaw mais ba tey dañuy des ci ci mbir moomu am na beneen wàll boo xamante ne dañ ko dañ ko dañ ko ciy gis mooy arrestation yu bëri jàpp nañ fi Assane Diouf jàpp nañ Clédor seen jàpp nañ euh, comment dirais-je euh, ku ci ku ci ku ci toppaat troisième personne bi ak Guy Marius jàpp nañ leen ak ñeneen ñoo xam ne lu ko jiitu woon ñoo xam te ay jege Ousmane Sonko lañ nekk ci parti bi di Pastef ñu bëri jàpp ne intimidation la nguur gi di def jamono ji. waaw parce que xam nga état aussi les état dafay des état l' état toujours en état et la force restera à la loi donc li ci am solo mooy lépp loo xamante ne tey yow yaa ngi koy def muy ay actes yooyu posé na la leer ne bu fekkee dafa safaanoog wala dafa waroog li nga xamante ne moom mooy principe yi tax état di dox yow na la leer ne am na loo xamante ne moom moo la ciy xaar. te lépp looy def ci sa àdduna aussi na la leer ne boo ko defee aussi il faudra que yow nga assumer ko parce que bés boo ko assumer bu la dara ci fekkee yow da ngay xam ne lii ma def lii moom moo ko jur et à partir de ce moment là aussi on est responsable de nos actes donc pour le cas de ces arrestations il faut impérativement ñu laaj ñoom lan la ñu def et qu'est-ce qui s'est réellement passé ba ñu arrêté leen parce que yow en tant que citoyen lambda euh, jouissant de ses libertés de mouvement et tey jii am na loo xamante ne defoo ko ba état di la ñëw di la jël si donc tey jii dañoo nekk ci contexte boo xamante ne on ne doit pas frémir parce que li am solo mooy on doit gérer un état avec la courtoisie qu'il faut mais dans la rigueur et la fermeté mhm. donc nu resterons fermes par rapport à certaines choses parce que l'état reste un état donc nous serons assez compréhensifs par rapport à, à des actions qui soron menées parce que tout simplement il y a une liberté derrière qui garantit, parce que nous sommes dans un état de droit et que la Constitution permet à tout citoyen ou Sénégalais qui n'est pas mécontent d'aller quand même déposer une autorisation de marche et de montrer à tous les Sénégalais li nga xamante ne moom nga d'accordul maanaam li nga xamante ne moom moo la métti. mais mais mais dafa am beneen lecture boo xam ne ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci lépp lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu doomu ginnaaw bu ñu gis ne. am na ko ci sous président Macky Sall parce que bu ñu xoolee ba ci biir liberté yi dañ leen di dañ leen di enfreindre ñi nga xamante ne dañuy dañuy dafa am lu ñuy lu ñuy ñaxtu ñu ñu tere leen ko ñi ñu leen di jàpp bavure policière bi ba démb rek am na ay professeur d'université yu génne benn manifeste di euh, génne yenn imperfection yoo xamante ne dafa am ci état de droit ak yorinu président Macky Sall. non parce que boo xoolee ñoom ñoom li ñu génnee dafa ciblé une période ciblé wul Macky Sall kese. Mm-hmm. parce que aussi yéen en tant que taskatu xibaar il faut que yéen ngeen analyser situation politique waaw d'accord naa mais euh, politique u Sénégal depuis 1960 ba léegi donc nous tous nous avons souvenance ci ci problème mu mai 68 ça a été très difficile et très compliqué donc la crise de 1962 fii la fekk sénégalais yi ba ñu jël ci le le président Mamadou Dia tëj ko donc li nga xamante ne aussi mooy enrolement par force ci ay leader syndical au niveau des universités ñu yóbbu leen au niveau de l'armée euh, l'emprisonnement de de de de Abdoulaye Bathily et autres jusqu'à Abdou Abdoulaye Wade donc dafa am loo xamante ne tey donc état moom mooy moom mooy demee noonu et aussi c'est cyclique dañuy toll foo xamante ne euh, benn période ci ci ci ci àdduna donc day am ay agitation parce que dañoo toll ci ay euh, ay élection parce que bon c'est vrai que on on est à. non mais na foofu dama lay dog fi ñu toll si jamono ji moom président Macky Sall li mu fi aaye ci ay marché ak li mu fi tëj. ak li mu fi gis ci ay coow ak fitna ak yooyu li mu fi am moom dafa mel ni dañoo nekk ci période pré campagne te yeggaguñ fa. non nekkaguñ ci pré campagne. mais mais tey jii mais situation boobu lay lay lay lay jox. réew mi parfois ci tere ay marche si si si si yoo xamante ne daal dañuy. jàpp ne mais yow par rapport à la situation sanitaire d'aujourd'hui est-ce que yow mën nga war a mën a cautionner ay rassemblement war nga ko mën a cautionner xam nga ci période bi ñu nekk nii muy période boo xamante ne c'est une période d'incertitude pour tout le monde donc est-ce que war nañu mën a autoriser yenn yenn yenn manifestation yi. donc état itam dafay apprécier parce que boo déposé dangay ngay déposé au niveau de du préfet le préfet c'est une administration l'administration ça n'a rien à voir avec la politique parce que en tant que administrateur nga am ay ay mbooloo yo yo yuñ dénk yow yaay xool par rapport à la crédibilité de la demande de la marche la sincérité mais également aussi le soubassement qu'il y a derrière donc appréciation yooyu ñun mënuñu ci dem parce que nous ne pas dans les secrets de Dieu donc li ci am solo mooy préfet wala gouverneur wala leneen bu jàppee ne lii war nañ ko mën a autoriser dañ koy autorisé mais bu fekkee loo xamante ne aussi dafay indi ay trouble à l'ordre public je pense que état aussi daf koy gérer avec fermeté mu annule ko képp ku mu manti doon nag parce que mën na doon aussi des membre de de la coalition Benno Bokk Yaakaar du même moment aussi mën na doon aussi ay opposants wala même de la société civile donc état dafay gérer ay équilibre dafay gérer ay équilibre donc équil parmi ces équilibres là donc la quiétude ak la stabilité du pays sax euh, def ci dépendre te am na yoo xamante ne aussi par rapport à la tranquillité et la quiétude des citoyens sénégalais donc président de la république wala muy ay euh, ay démembrement état duñ ko négocier. ok Lassane dañuy dañuy dañuy dugg ci beneen point gannaaw bu ñu waxee ci mbirum Ousmane Sonko démb lañ door campagne de vaccination ñeel coronavirus bi. ñu gis ne Abdoulaye Diouf Sarr dem na ñàkku ji ku ci mel ni professeur Seydi ñàkku ji na ay satatal Sall ñu bëri Hadj Mansour mbay waaye de kilifa gi kenn gisagoo fa mu ñàkku président Macky Sall. waaw loolu loolu je pense que c'est juste une question de d'organisation. Euh, président de la république waxtu bu jotee bu waree ñàkku sénégalais yëpp dinañ ko moo indi ñàkk yi kay xel doon na nangu koy mu njëkk ñàkku d'accord na mais aussi président la ne eh, xamoo fan la ne laasana amul calendrier bu fi weesu calendrier ko pikiir bi comme niñ ko duutee dina ko def de ah mais lu ko dina ko tey ji Abdoulaye Diouf Sarr président Macky Sall la waaw na mais mais xam nga li am solo xam nga li am solo mooy aussi le le ministère de de de la santé et dépositaire. Ah. de la politique sanitaire de notre état et de notre pays. donc am na loo xamante ne bu wàccee doon ay vaccin mu wàcc ci moom mu invité les membres du gouvernement ñu dem foofu ak les personnalités politiques religieuses et sociales ñu dem foofu président de la république il ne peut pas aujourd'hui envoyer les gens au charbon ba pare toog fale mënul ne. pédagogie par l'exemple lancé na pédagogie par l'exemple képp kiy jàngalekat wala ku jàng xam nga ko. waaw loolu boo bëggee gën a convaincre masse yi da koy def gis nañ fi joobaay dañ toog joxe ñu duut ko. ko def yeneen kilifa toog nañ ñu def leen ko. ba noppi dem toog pale jàpp ñaam na ñeneen ñi loolu ko def moom loolu moom xam nga problème bi mooy Sénégal amul lenn loo fiy def te critiqué wu ñu parce que tey euh, euh, boo xoolee démb euh, au lieu ñu ñu apprécier même la le courage des personnalités yi nga xamante ne ñoom ñoo dem ñaxku donc vous de la presse yéen li ngeen di gis kii solul gant kii deful lii bon état àdduna moom moo demee noonu. Mhm. lépp loo teg ci àdduna rek il faut mu am ñu ko ñu ko critiquer lépp lu manqué itam il faut que gars yi ne lii li tax li tax mënul sotti mais man li ma gëm mooy président la république ak ni ñu ko xamee donc il est le premier le premier soldat de notre nation. te waxtu bi bu jotee dina dem sénégal yëpp gis ko ñu pikiir ko. Ah, en tout xeex mbas moom soldat bi ñëwagul ñu ngi koy xaar xam naa ko wax nga ko léegi du ñàkk dara ay bés yi néew wala am na sax ñu ne ñàkku chinois bi la wóoluwul. non non non du ko hmm. parce que comme moom ni mu ko expliqué xam nga problème mu ñàkk bi donc daf di ay ay ay vaccin yu xaw a bëri. Hmm. donc mais ñoom ñëpp benn objectif la ñu am. c'est-à-dire aller vers la fiabilité à cent pour cent. mun a munaguñ ko am mais au moins à quatre vingt dix quatre vingt dix huit pour cent c' est donc li ci am mooy dafa def commande ci chinois yi def ko au niveau européen def ko également avec les russes donc dafa dafa fekke ne nag chinois yi ñoom ñoo njëkk a réagir mhm. donc bi ñu réagir itam vraiment ñoom ñu indi les premières doses chinois qui sont arrivées à Dakar te tam aussi occasion pour ñu remercier ak féliciter le président de la République ci état d'esprit bu mu am ak ouverture bi mu am du point de vue de la diplomatie mu gérer d'abord ce que l'on appelle de sécurité mooy les pays limitrophes donc muy jël ci mu jël ci ay dose vraiment en guise de solidarité jàppale leen donc loolu aussi dafa wone ne au-delà du leadership au niveau national président de la République moo ngi incarné un leadership fort au niveau de la sous-région donc muy loo xamante ne vraiment c'est quelque chose à saluer mooy Gambie ak Guinée waaw ak Guinée waaw mm-hmm. donc vraiment c'est c'est c'est c'est c'est des actes à encourager parce que mm-hmm. nit ñaar ñi ñi bokk rek ñoom ñoo mën a jàppalante c' est nos nos voisins tuuti la am sax compal na leen ci may quoi. l' acte qui compte. <laughs> waaw loolu laax dama ne geste bi rek. moo moo moo jar a wax xam nga dañ naan kii kii kii raam du la yóbbaale bu taxawee du fa bàyyi. absolument absolument loolu c' est c' est important. léegi ba tey dañuy des ci ci ci wàllum ñàkk bi ak coronavirus bi alors am na Sénégal ñu bëri ñoo xam ne na accord ci ñu bëri bon boo leen nee ñàkk rek ñu daw ñàkk bu ñu ñàkkee da ngay am lii après. effet secondaire yi ku nekk di xalaat noo noo gisee communication bi ànd ak ñàkk bi ak niñ koy defee li ci am solo mooy xam nga ñàkk yàgg na am ci ci réew mi d'abord li ko tàmbalee ci programme élargi de vaccination ñëpp jaar ci parce que moom même tey jii sax euh, dem rek benn pas moo doon toll ne ñun fekkewuñu ñàkk ñàkk yu métti yooyu mais je pense bien que notre génération ak peut-être ñi jiitu ci kaw donc ku ci bëri ñu ci bëri am nañu séquelle bi séquelle bi nga xam ne moom moo nekk ci ci ci ci ci ci ci ci suñuy loxo donc muy euh, PEV programme élargi de vaccination bi ñu doon def ak pistole yi mais nag tey jii li tax mu wuute mooy xam nga boobu télé yeeg yooyu bariwuñu te instant bi ñu nekk nii réseau sociaux ak yooyu donc ñu si bëri dañuy bëgg am buzz comme ni ñuy waxee rek yow da ngay nekk ci benn chaîne wala nga nekk ci benn benn link am say abonné bëgg ay vues nga def ay vidéo yoo xamante ne dafay xaw a jaxase xelu nit ñi mais je pense que li am tey mooy li euh, euh, ñu réussir baat li nga xamante ne moom mooy Covid 19 bi bu ko defoon ci sidaa bi xëy na peut-être heure bi fekk na ñu am ay jéego yu bëri ci ci wàllu santé mais nag man li may wax mooy donc ñàkk bi d'abord c'est volontaire doomu aadama bi yow yaay xool par rapport ak yow sa situation sanitaire ak aussi sa situation personnel mu leen na ne aussi état def na li mu waroon a def mooy maanaam tey jii mënoon na ne damay jaay ñàkk yi mais moom il a pris la responsabilité dem wuti ay vaccin ñëw teg képp koo xamante ne nag war nga mën a def ñàkk bi nga dem defi ko à l'heure où nous parlons donc dafa nekk loo xamante ne c'est une gestion par priorité hmm. maanaam dafa am tranche d'âge boo xam ne dañ ko ciblé am benn coût social boo xam dañ ko ciblé mais en attendant les les les vaccins russes et autres bés bu ñu ñëwee en abondance je pense que le choix restera au Sénégalais képp koo xamante ne da ngaa war a dem ñàkku nga ñàkku ci parce que aussi nous en tant que jeunes le discours bi ñu war a tenir mooy waruñu mën a faire prévaloir de notre jeunesse hmm. pour refuser un certain nombre de de choses muy le vaccin qui qui doit être un impératif pour nous ñaareel bi aussi ñun ñun ñooy génn Mm-hmm. nos parents sont sont vraiment sensibles et exposés ñu génn ci biti indi mbas mi jox leen ko ñuy ay ñu doon ay population ñëw di lor ñi ñi lor leen donc ñu dese si temps bëriwul dañuy dugg ci dernier point bi rek mooy yow yaay coordonnateur APR fële ci Île du Saloum alors question bi mooy locales yi la ñuy wax ba léegi kenn xamul ban la ñoo xamante seen app jeexoon na depuis 2019 ba tey ñu ngi fi 2019 2020 2021 deux ans yoo xam ne ñu ngi fi loolu naka nga ko gisee bien vrai que ñu ngi wax audit fichier beeg yooyu yëpp ci biir. waaw parce que boo xoolee je pense que ñun Sénégal war nañu toll foo xamante ne war nañu dépasser euh, ci ay dem élection di ko pousse di ko poussaat parce que si j'ai bonne souvenance les le les dernières élections yi ñu am en 2002 c'est-à-dire on a eu des élections locales en 2002 yu waroon a jeex en 2007. malheureusement nag ñu poussaat ko ba 2009 donc nous avons connu un décalage de deux ans 2009 donc ñu demaat ba 2000 ba 2000 euh, ba 2014 c'est les élections qui sont tenues à date à date à date échue donc de 2014 jusqu'à présent nag ba léegi ba 2019 la ñu waroon a dem malheureusement nag am loo xamante ne dugg na ci te li ci bëri aussi il faut que il faudra que aussi nit ñi ñu assumé xam ne aussi la position de l'opposition c'était d'abord dans le cadre du dialogue qui a initié par le président de la République ñoom ñu xool nan la ñuy def ba indi si seen position ci position yooyu bokk na ci ñoom ñu ne il faut que ñu auditer fichier bi ñaareel bi aussi ñu évaluer li nga xam ne moom mooy processus électoral mm-hmm. parce que audit fichier du méttiwul donc avec les experts que nous avons je pense que en un mois de mois war nañu mën a boucler mais quand on évalue le un processus électoral ça veut dire autre chose donc tey jii itam le souhait bi président de la république am te ñëpp am ko mooy ñu def le tout pour bañ a génn pendant la période de 2000 2000 2021 donc techniquement aussi il faut que ñu xool la période ou le président décidera de convoquer le corps électoral mm-hmm. donc li nga xamante ne moom mooy les révision exceptionnelles ah aussi am loo xamante ne mu ngi ci réew mi mooy weeru koor bi ak début de début de début d'hivernage bi yooyu yëpp dañ ko war a jël en compte muy loo xamante ne vraiment au mois de décembre deux mille vingt et un impérativement et techniquement c' possible. pour ñu dem ci élection war nañu dem ci élection xam naa war na am parce que maire yi ñoom seen mandat jeex na bu yàgg. île du Saloum lan lan la fa APR def loo xamante ne bu ñu ko doon tënk ci mbàllum bilan wala lu lu concret bi Macky Sall ñëwee ba léegi xam naa. waaw président de la République nag très sincèrement ñun dañ koy remercier dañ koy féliciter mm-hmm. d'abord pour la vision bi mu am par rapport aux îles du Saloum parce que on a toujours dit que ñun au niveau des îles du Saloum waruñu on ne pas être exclu par la nature et être exclu administrativement et politiquement ba tax na moom mu comprendre ko bu baax. Euh, li mu njëkk def mooy d'abord analyser la situation parce que xam na ne jafe-jafe bi bi fa njëkk am mooy problème mu ndox mhm. donc moom mu ne ñu man je vais vous faire une une chose révolutionnaire maanaam dinaa leen defal transfert d'eau il nous a amené de l'eau dans la région de Thiès à Tassette plus précisément jusque dans les îles du Saloum 270 kilomètres de tuyauterie yi donc muy loo xamante ne lu révolutionnaire la ñaareel bi aussi donc par rapport ak l'électrification il nous a il il l'a fait mooy la réalisation de quatre centrales solaires benn Bettenty benn Djirnda benn Dionewar ak benn Bassoul et il l'a fait aujourd'hui nous avons euh, euh de l'électricité en permanence H24 au niveau des îles donc beneen bi ci gën a révolutionnaire mooy loo xamante ne aussi depuis 1960 ñoo ngi koy xeex malgré le fait que Abdou jouf sa femme est de la localité notamment Sambadia et Palmarin donc muy loo xamante ne vraiment la route sa Sambadia Jifeer qui en un calvaire le président de la République a la réalisé en un temps record muy loo xamante lu am solo donc yeneen ak yeneen i infrastructure yoo xam moo ngi koy def yow gis nga li muy def au niveau de de de Foundiougne par rapport au pont de Foundiougne muy lu am solo donc la seule chose que nous demandons aujourd'hui c'est c'est dans le cadre du renforcement de la mobilité mooy d'abord la réalisation des bateaux taxis c'est vrai que y a une particularité pour certaines îles compte tenu de leur nombre il faut que ñoom ñu dem vers ça beneen aspect bi mooy d'abord aussi ñu xool nan la ñuy def accompagner président la République ba mu def li nga xamante ne moom mooy projet zéro donc mu def benn linéaire boo xamante ne de Palmarin on pourra toucher directement euh, l'île de euh, Jimsaan jaaree Mbij dugg waar ba Niodior de Niodior à Falia comme ça on va faire benn ceinture boo xamante ne boucle boo xamante ne dinañu permettre euh, vraiment ñu euh, les voitures ñu am accès dans les îles compte tenu de beaucoup de facteurs surtout le tourisme ak leneen ak leneen donc muy loo xamante ne lu am solo mais également aussi mu am ay actes administratifs yoo xamante ne président de la République teg na ko te léegi. ñuy xaar la signature de la signature des décrets d'abord la communalisation de Niodior qui est un impératif ou la euh, li nga xamante ne moom mooy enquête économique bi def nañ ko donc li nga xamante ne aussi mooy la euh, l'avis du conseil municipal ki a été très favorable yooyu yëpp ñu def ko donc occasion la pour ñu remercier le président de la république. ne ko nag waaw ne ko nag vraiment jàpp na ci ci affaire yi donc la seule chose qui reste à être fait mooy nous l'invitons vraiment à venir visiter les îles di saalum donc Diouf a a fait deux fois deux fois les îles. Senghor Senghor était était non non Senghor était ah. là-bas malheureusement Wade l'a pas fait et je pense que il ne sera pas une exception il aura l'occasion certainement si le calendrier lui permet. pour mu ah, mu espérons que dina ñëw seet si île du Saloum. parce que ay ay ay bërëb yu neex la ay diwaan yu <laughs> <laughs> ñoom ñoom ñoom baasu la. absolument vraiment. ma bàyyi la nga def sa mot de la fin. waaw d' abord vous remercier di leen ñaanal vraiment ci initiative yi ngeen di jël en tant que organe de presse. aussi di demander aussi à ce que état bi moom mu jàppale ñi nga xamante ne moom mooy jeune entrepreneur yi nekk dans l' audiovisuel. Hmm. donc quel que soit euh, li ñuy jéem donc ils ont la volonté de faire sortir les choses et de faire bouger les choses ñu ñaan aussi vraiment seen. seen euh, seen makaan bi doon lu gën a kawe seen jot ñu toog a toog ba ngeen am ay antenne partout donc aussi di am kontaante bu baax euh, ci invitation bi jërëjëf euh, Lansana Sarr moom mooy coordonnateur APR fële ci les îles du Saloum ñu koy jaajëfal ci invitation bi ñu nangul ak waxtaan bi mu sekk ak ñun yëpp li fi ruuse yëpp ci xam-xam di leen di jaajëfal ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun Dóor waar moo nekkoon ci caméra yi jàngeen ngeen jëf ba beneen yoon allah